ku ci dëggal sëñ Tuubaa dana la gàttal loolu ñëpp a ci yem ku dëggal aw ci yoonu sëñ Tuubaa fii ci dund gii rek laa laa waxuma du rawat du dund ëllëg da ngeen am taw feet kon yoon waa nga góorgóorlu leen bu baax te xam ne yéen a nga ca kaw yoon wa mbokk yi bàyyi xel di ñu topp ci xasiida gu tedd gi di wa aadamal aadama lasmaa kullaha mbokk yi noo ngi delsiwaat ci xasiida gi di leen ko toppal xam ngeen ne démb ñoo ngi daane woon fu ama am solo ci xasaayit gi di ñaan sunu boroom nangul nu ko ci barkeb Seexul Xadim radiyallahu anhu mu mel ni kon démb noo ngi daane woon daawtukal yawma bi jaahil Mustafa fasit niyal xelma wahab li yastifa ñaanoon na yàlla na ko jëm na ci kott kott kott sama jàmbat jàmbat gi mooy lan mooy réer gim réer mooy ñàkk xam-xam ndax dañuy wax ne ku amul xam-xam ku ne maanaam dangaa doon ku réer loolu waral sëñ Tuubaa ko maa ngi lay jàmbat sama réer yow mi xamaakoon bi lam bëgg yàlla fajalee ko réeram nag mooy xam-xam comme bu xam-xam ñëwee rek réer dàqu <laughs> mu ne na nga tarxee sama dégg na nga sellal sama xel maa ngi sàkku ci yow ba tey xam-xam muy xam-xamu sariya waaye nag laa min xayrika du ma sàkku keneen ku dul yow ci xam-xam kom ci yow rek laay sàkku xam-xam nag na nga ma hubbil sa bunt ba nga xam ne xam-xam yëpp ci la ñuy ballee na ma ko hubbil ma jàkkaarloog moom daan na ko yow sax loolu tawut na de parce que yaa xamaloon aadama tur yëpp aadama xam ngeen ne xam-xam ba jàngutoon ko waaye yàlla moo sol xam-xam ba ca dëndam ba mu wax loo xam ne dafa jaaxal sax malaayika yi fa laaw nee na ko yaa xamaloon aadama loolu nag kon nag na nga nekk di ku may xamal xam-xam yëpp moo xam yu sariha la wala yi nga xam ne kenn du ko jàng waaye nag nang ma tarxiya ba tey mooy tarxiya sama dégg ñawal sama xel waaye ci barke kun na nga wax kun nekkal rek man sëñ Tuubaa li ma soxla ci xam-xam la duniya ak xikam lépp fa tabarakallahu daal di dajee ci man ak xam-xamu sariha daan na ko yow loolu ba tey tawul la de jox ma xam-xam parce que ñi am fahmu ñëpp yaa leen dégg loolu ñi nga xam ne dañuy jàng tuuti topp ko yàlla defal leen ci ak ak fatu defal leen ci digg ñi am déggin ci alxuraan am diggin ci lépp lu baax nee na yaa leen ko defaloon kon nag na ma may xam-xam ba mel ni ñu xam-xam am xam mel ni ñoom maa ngi lay ñaan tey jii ci darajaay ka ñu tànn ka na nga ma dolli xam-xam te nag ma may ak sell kon gis na ñaan yu am am solo la moom lay continuer ba tey ci ñaan yooyu tey ñu war a dalee ci min ka aruumul xelma wa taadduba fa alimaniya bi jaahil mujtaba mu ne arumu maa ngi sàkku min ka ci yow alxelma xam-xam wat ta aduba mooy mooy bat bi nag dafa mel ni téere bi moom dafa def watta adduba watta adduba ngay jàngale watta adduba maa ngi sakku ci yow xam-xam watta adduba bu ànd ko teggin ya kon nag fa allima niya nanga ma xamal xam-xam ya bi jaahil mujtaba ca darajaay ka ñu tànn ka te mu yonent bi mu ne yow yàlla maa ngi sàkku ci yow xam-xam waaye xam-xam dafa am loo xam ne bu nekkul ci biiram rek du baax muy teggin bu ànd ko teggin kon xam-xam mëntu dem bàyyi teggin moo tax yoonu murit sëñ Tuubaa koo sanc ci xam-xam akuk teggin daan wax de yoonu murit gii de lu fi waaye mënti mën a jëlee ak sama kër gi bàyyi fi teggin mooy jëlewu fi dara waaye nag lu waay mën a am lu waay mën a ñàkk te am teggin am na lépp ndax teggin alxuraan ko njëkk a jàngale diggante saxaaba yi ak yonent bi salaay salaam kon teggin mooy lépp moo tax mu murit teggin moo war a jiitu ci moom lu ne teggin moo ci war a jiitu bu teggin amee rek lépp wuyu si ko waaye bu ñàkkee teggin rek fa tabarakallahu mën na ko jural musiba loolu nag lay bañ moo tax mu ne ko aro maa ngi sàkku mi ko ci yow alxel ma xam-xam watta adduba gu ànd kook teggin ya kon nag fa alliman ya nag ma xamal xam-xam ya bi jaahil mujtaba ca daraja ka ñu tànn ka mu ne ko asaluka allahuma kawni alima wa xaamilan wa saaliman wa qaanima mu ne asaluka ñaan naa la yow sunu borom allahuma yow sunu borom kaw nii sama nekk xaalima di aji xam mooy di xaalimul xalam waaye nag wa xaamilan di aji jëfee xam-xam ba waaye wa saaliman di aji mucc waaye nag wa ma di aji màng la ma bëgg ca xam-xam ba lépp ma am ko mu ne sunu borom maa ngi lay ñaan ma doon xaalimul xalam sëñ Tuubaa moom def naa ne sax moom fuxulul fuxóolati la mooy kuuyul kuuy borom xam-xam yëpp mooy kuyul kuyul moom sëñ Tuubaa nee na ko nang ma def nang ma def yow yàlla ma doon xaalimul xalaam ci xam-xamu sariya xaalimul xalaam ci xam la duniya waaye nag xam-xam bu ci ne lañ ciy séentu la koy tax mu am njëriñ mooy nga di ko pratiquer di ci jëfandikoo santaane ak sunu borom xam-xam loo ko am lu mu bëri bëri te jëfa te jëfandikoo ko mu ngi mel ni poussière rek poussière rek la poussière moom tabarka la fàtte rek la man ak gaañe waaye jëriñu dara moom poussière gis nga boo bayee ba noppi sax poussière bi moom day naaw waaye poussière bi amu ci soxla kon nag asaluka maa ngi lay ñaan allahuma yow sama borom kaw nii sama nekk xaalima di aji xam wa xaamila di aji jëfee xam-xam ba wa saaliman di aji mucci wa xaanima di aji màng am la ma bëgg lépp ci xam-xam ba kon ndax boo amee xam-xam rek te di ko jëfee dana mucc ndax xam-xam dañuy wax ne boo ko amee di ko pratiquer ni ko sariya ni ko yàlla digle da nga mucc ci bépp ba da mucc sax ci loru nit ñi nga borom yi lor leen kenn mënu ko ndax yàlla moo leen di aaral boppam parce que lañ lañ yor moo tax mooy leerug yàlla lañ gàddu te xam-xam al ilmu nuurullah la waaw xam-xam leerug yàlla la moo koy soob ci dënn ku ko soob waaye rawatina koo xam ne moom da nga koo jàgg ba noppi ànd ko teggin ya te di ko jëfe kooku moom danga da nga doon saalim da nga doon xaanim mooy da nga doon ku mucc ci gépp ayib gu mën a yàqal nit bépp ayib gu mën a dugal nit safar waaye da nga màng lépp loo bëgg ci xam-xam tey xoolal borom xam yi demuñ fenn lu dul jàngal rek waaye luñ bëgg mu fekk ci leen loolu yëpp ci bar ci barkeeb xam-xam la fa tabarakallahu mu ne ko lii xaqon loo mal awliyaa il asfiya bila masaqatin wa yasir amriya mu ne yow sunu borom xab na nga may lii ñel ma xoloo mal awliyaa i xam-xamub awliyaa yi al asfiya i moo doon cosaan li nag dafa mel ne day nekk mu mudaafun ilayhi booy xool dafa mel ni dañ koo xataf ci awliyaa yi waaye déedéet loolu lay niru waaye déedéet la doon cosaan la mooy lii xab xoloomal awliyaa i ak lii xab xoloomal asfiyaa i waaye comme yi alif la ñuy daanoo moo tax waxut asfiyaa i ndax xamsa gi xajut fi kon mafoon rek lay nekk du nekk mudaafun ilayhi ci awliyaa u moo tax mu ne xab na nga may lii ñel ma xoloomal awliyaa i xam-xamu awliyaa ak xam-xamu asfiyaa u te muy yonent yi nag ma may ñaar yëpp bi laa masaxatan ci duru benn coona waaye wëyi sir na nga yombalal amriyaa samay mbir yëpp na ko defaloon Moussa te mooy waysir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yëf koo xawli yow yàlla na yombal samay mbir yëpp waaye nag na nga fecc sama pas a làmmiñ ba nga xam ne samay nit lu ma wax rek dañ koy dégg fa tabaarkalla te jëfee ko mu ne kon nag ma may xam-xam ak awliyaa yi ak yonente yi loolu wax na ko ci barab yu bari am na feneen may wax ci xasir yu yooyu ci ataabalil mamru kal awtaani ma ngi fay wax ne lii xut xoloomal awliyaa kal asfiya wal xoloma waliya asib nayliya wommatal nga ma jox ma xam-xamu awliyaa yi xam-xamu yonent yi borom xam-xam yi borom xam-xam yi itam waaye nag jox nga ma sax li gën a màgg loolu xel mi yéex gi asfiya ul nujuba waaye nag wa bii yu baax yi ma si san axjaba nee na sama xam-xam man Sëñ Tuubaa ci lay yàlla di gindee yonent yi xam nga kooku kenn xamul mu dem dem ba ne sax yàlla may na ma tawfiitu yonent yi jàng nañ ko ci nuuru daarin yàlla may na ma seen jëf ya sama xasida gi nuuru daarin rek moo toll ak jëf yonent yi waccaal kitaabati ka kulli mursalin yaa man waxabtali ujjo wax na ko ci barab bu ne kon moom Euh, boo waxee xam-xam na mooy plan ya seen plan yi xam nga yonent bi leen yàlla yónnee plan yi nañ doon nañ xereñee woon ci woote ba maanaam xam-xam yooyu yëpp yàlla da ko da koo rafaatale jox ko ko moom jëbi sëñ bi awliya yi xam-xam yi yoroon yëpp fa tabaarakallaahu mu nag boo ma mayee xam-xami awliya yi ak yonent yi bilaa masaqatin ci dul benn coono ndax nit yàlla man na laa may dara sax waaye fekk ci condition la boo defee lii am lii waaye suñ tubaa nee ne coono sax bu mu ci fekk te na nga yombal suma mbir ma bëgg rek mu dal di jàppandal mu ne ko antali ci alamta luqumaan al hikam fa li yahab bil mustafa xayra siyam mu ne yow sunu borom anta yow loolu tawut la may ma xam-xamu yonent yi ak awliya yi tawut la parce que yow anta yow léegi dafa jàkkaarloog yàlla mel ni ku koy poñe na ko anta yow allafi yow yaay ki nga xam ne xalamta xamaloon nga luqumaana luqumaan al hikam xam-xamu hikam ya kon nag faxat yàlla na nga may lii ñal ma man suñ tubaa bil mustafa ca darajaay ka ñu tànn ka xayra siyam yi gën ci jukku ya nga xam ne xam-xam boo ko amee dañuy am jukku yuñ soxla ci xam-xam ba maanaam gën ci jukku ya nag moom la ko ñaan mu ne comme ñi nga xamoon luqumaan luqumaan nitu yàlla ku baax a baax la woon waaye nag bëri hikkam wax laan leen wax naa leen na leen xam-xam bi ci ëpp doole bi ci ëpp jëriñ bi ci gën a bëri gën a sakkan mooy xam-xam hikkam lu sunu borom di wax ne dafa xa dootee xerin ko ci ran ñun yàlla ku ñu jox hikkama képp koo xam ne jox nañ ko hikma ah jox nañ ko yiwu bari bari waaye nag masiyatullah la xam-xam la boo xam ne yàllay xool ku ko soob rek mu jox ko waaye amul lii amul laa déedéet yooyu tul hikma tam man yasaau la wax masiyatullah la luqumaan mii sunu baram da ko tuddee sax aw saar ngir lan mag màggaayam képp kon xam ngeen ne am na cër gis nga doomam daan na ko dénk dénk yu am solo wax nañ ne sax benn bis dafa woo woon Euh, doomam di ko dink dink yu am solo dénkaani yoo xam ne man gën a bindéef yëpp mën nañ ci jëriñu daf doon ragal rek mu dee bàyyi ko fi muy sànku moom doom ji wax nañ ne sax bi ñu ko dénkee yi moo ko njëkk faatu waxoon na ko del fàtte ñaar doom tey fàttaliku ñaar ñaar yooyu fàtte mooy doom maa ngi lay dink bu mu fi bay koo képp koo xam ne defal nga ko njëkk fàtte ko ndax koo defal njëkk di ko fàttaliku rek day niru këll si yunfiqu maaloo ria annaasi day niru bil man ni wala saa mooy ndistal wala ñaxe yu mel noonu ak lor di ci am mu ne koo defal njëkk ku ne nag na nga ko fàtte complet ku la def lu ñaaw itam fàtte ko ndax nit mën na laa def lu ñaw nga fayu te loolu nee na ku la ko mën a def rek fàtte ko waaye nee dal dal ko ñaar fàttaliku ñaar mooy bu ci njëkk doom fàttal ñaar yi ma wax la léegi waaye bu ci topp mooy de ko ko bu ko fàtte mu ko dee dee ndax borom xam-xam dañuy wax ne fàttali ko dee jaamu yàlla goo xam ne kenn mëntu takk yoon ba toog benn bis rek nga xalaat maanaam yow bis dana ñëw nga dugg ci biir bàmmeel di ko xalam maanaam loolu nan lay war a mën a nekkee loolu jaamu yàlla bu nu toll kenn xamul nu mu toll loolu rek mën na la xet li ci mbugalam bàmmeel moo tax fàttaliku dee lu am am solo la mu ne ko nag del fàttaliku dee bu ko fàtte dee parce que loo xam ne yàlla nee ne maa leen gën a jege seen buumu xol dañuy wax ne doomu aadama li ko gën a jege lu boo ko xoolee mooy dee su ne nga lekk benn tib sax dee la gën a jege ndax yoo xamoo boo tibbee bala ngay sax da nga dee déedéet xamoo ko kon nag dee dalaa gën a jege mu ne ko ak ban mu ne ko koo defal njëkk teraanga kula defal njëkk bu ko fàtt maanaam yow yow sama doom ku la defal njëkk bu ko fàtt xam nga bee da ko waxoon na ko képp koo defal fàtte ko ku la def lu ñaaw fàtte ko bii mu ne ko del fàttaliku dee te ku la defal bu ko fàtt xoolal lii rek dénkaane yi nga xam ne ku ne warees na ca mën a jëriñu wa isqaalu luqumaanu fàttaliku luqumaan ba muy wax li ibnihi ñeexal doomam ja wa huwa soo alquran nee boobu ma ngi koy waar lan la ko wax yaa bu ni yow sama si ndoom laa tusrik billaay bul bokkaale yàlla ndax inna sirka la sulmun asimun gis nga alquran di gën a li gën màgg rek moom la indi waaye dénkaan yu bëri la ndax moom dafa gudd fan fekkee na jamonaante ne ak juróom-ñetti yonent jamono wante na ak ñoom waaye alquran benn rek la ci indi fàttaliku luqumaan ba muy wax doom ja ko fekk boobu ma ngi koy waar ndax ndénkaat yu bëri la waaye alquran indiwul yëpp na ko bul bokkaale yàlla ndax bokkaale lu màggal ah kon wala xadaat naa luqumaan al hikmata ñun yàlla ñoo jox luqumaan xam-xamu hikma ñu ne ko anu uskur lilaay yàlla mi la ko jox ndax wa man yaskur fa innama ko jox ndax képp koo xam ne dana sant yàlla ci la ko yàlla jox payoor ba ci bopp rek lay dellu léegi xam-xam boobu nag Sëriñ Tuubaa suñu borom da koo jox da ko rafaatale muy xam-xamu luqumaan kon xam-xamu sariya suñu borom jox na ko xam-xama lëb ni ba joxoon xadir jox na ko xam-xam ba mu joxoon luqmaan jox na ko te yii yëpp xam-xam la yoo xam ne fa tabarakallahu gis nga biñ tëbee bés ne ko na nga dolli sama xam-xam boobu xam-xam moom lam ci rek mooy xam-xam bi xam ne mooy xam-xamu sariya mooy fa mu waxee ne ko alimu alim ni min la dun ko xel man wasit xel mii boobu lam ci jublu mooy xam-xamu sariya na nga ko dolli waaye nag ma xamal xam-xamu la duniya kon nga xam ne xam-xam la boo xam ne bu sew sew la mu ne ko nag anta yow alisi yaay ki nga xam ne alamta yaa xamaloon luqmaana luqmaan alikam xam-xamu yi kam kon nag fa lii maa ngi ñaan nga ma bil Moustapha ca daal yàgg ñu tànn nga xeere si yéen gën ci jukko yi mooy xam-xam ne ko amee dañ ne kii nitu borom xam-xam dëgg-dëgg la mu ne ko suxli ya lil gis nga mu ngi koy indiwaat sax mu ne ko suxni ya nag ma màngal lil xel mi ñeel xam-xamu sariya yépp xel mi bu njëkk boobu maanaam xam-xamu sariya la ci jublu wasux na nga màng ba tey yow yàlla lii ñeel ma alxel ma xam-xama la duniya gis nga na nga màng xam-xamu sariya yépp sol ko sama dënn na nga màng xam-xamu la duniya yëpp xel mu la duniya yëpp xam-xam bu kenn du jàng sol sol sama dënn nga xam ne ñaari yëpp bu dajee ci man xam-xamu sariya ak xam-xamu la duniya xataa assuré ba danaa mujj man suñ tubaa raasi xan di sax ci xam-xam xiddamaa ba mel ni géej xiddamaa maanaam mooy mu rek tur la ci turu géej gi ndax lu bari dañ koy misaale ak géej xam nga géej tey mbindeef yëpp bu ñu demoon di ci naan maanaam du ko yëgal yaramam sax day mel ni mosuñ cee naan sax nga daan bëriwaay gi moo tax nag mu waxee ko ni moo tax mu ni léegi xam-xamu sariya yëpp bu dajee ci man xam-xamu la dajee ci man léegi danaa mel ni géej xam-xam te loolu Sëñ Tuubaa ku xam Sëñ Tuubaa mooy géeju xam-xam ndax ñëpp moo leen di ballal xam-xam mu ne ko suux nii nag ma màngal li xel mi ñeel xam-xamu ba suux na nga màngal ba tey lii ñeel ma alxel ma xam-xamab xel la duniya xataa asiro ba danaa mujj raacixan di aji sax ci xam-xam ba ci demaa ba mel ni géej te loolu suñu borom defal na ko bokk yi mudda bi jaahil Mustafa mabarri wasalliyan alayhi rabbi xomri mu ngi continuer ba tey ci ñaan yi muy ñaan boromam te lépp yàlla defal na ko mu ne mudda nanga tàllal danga koy xaddam ca kanam xomri sama dund bi jaahil Moustapha ca darajay ka ñu tànn ka al bari ka gën a baax <laughs> wasalliyan te yow yàlla yàlla na nga julli alayhi ci moom yonent bi salaay mu ne na nga tàllal sama dund tàllal dund mooy dund goo xam ne lu baax képp ngay def maanaam dund gu dund ba léegi ñu ne yàgg nit ku fi yàgg ki yàgg mooy lan mooy ku fi nekkee woon lu baax rek moo tax yàggee fi moo gën yàgg fi boo dégg ñaan taw yi la war naa sëy la bat naa am na fu ñoo xam ne fu ne buñ koy jàng maanaam yàgg fi waaye boo fi yàggee nekkoo fi lu baax nag xoolal ñi ngay liñ ci lislaam ñii ñëpp bàyyi yonent bi ñaata at la fi am ñaar fukki at juróom ci la am faatu Fatima mi nga xam ne ñu baax ñëpp ci moom lañ sotti ñaataat la fanweeri at yi fanweeri at tamit sax matu ñaar fukki at ak juróom-ñeent am na riwaay yi gën a wér loolu la ñu wax xoolal soxna jaaratullahi moom it fanweeri at ak ñett xoolal ñu baax ñu tabaarka la kon nag bul bokk ci yahuud ya nga xam ne dañuy bébé rek bëgg fee yàgg te bàkkaar rek lañ di yokkal wa min allazina asraku yawaddu yàlla ne wa ma huwa bi musaxsi min al-asabi an yuhammara ñoo xam ne bu fi yàggee mbugal mi rek mooy gën a yokk loolu kon nga dee léegi moo gën koo xam ne si bàkkaar rek nga dëkkee te dee moom xamoo tay la xamoo suba la xamoo léegi la déedéet ndax nit ki dañuy wax ne lépp lu ko jege la ko gën a jege mooy dee parce que yàlla moom moom moom dee ndax wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi te yàlla nee na maa leen gën a jege sax seen buumu xol xolo doomu aadama nu mu jegee xolam yàlla nee na maa leen ko gën a jege tabarkal mu ne nanga tàllal sama dund dund gu barke dund gu naat dund gu xéewale dund gu yàgg dund goo xam ne jaamu yàlla képp waaye du bokk ak yahood ya mudda na nga tàllal omar yi sama dund bi jaahil Moustapha ca daraja ki ñu tànn ka alma bari ka gën a baax da koo tagg wa salleen alayhi na nga julli ci kawam mu ne attima na nga matal maa la nga xam ne na waytuwoo yéene woon naa ko min biri ci ak baax ci ay tiraanga fii sirrin ci lu nëbbu waxal leneen ak ci lu feeñ waaye nanga ko def bi jaahi yi ci daraja yonent bi salaay salaam mu ne li ma yéene yëpp matal ko ci ay tiraanga ci ak mbaax ci sama dund xam nga ñaanoon na léegi dundam suñu borom tàllal dundam léegi nag li mu yéene ci dundam rek lay moom lay ñaan lépp mu matal ko rek ci daraja yonent sallallahu alayhi moo xam ci lu nëbbu ci la ko yéene wala ci lu feeñ lépp mu matal ko moo tax mi ne atti ma na nga matal yow yàlla maa lépp loo xam ne nawaytuhoo yéenoon naa ko nawaytuhoo yéene naa ko min bir ci mbaax fii siri ci lu nëbbu wa alani ak ci lu feeñ bi jaay ci daraja yonent bi sama dund lépp daal li ma ci yéene yëpp def ci lu baax maanaam na na nga ma matalal ko waaw naa ko matal ba mat sëkk comme léegi li ñuy ñaanal rek Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàlla yàggal mooy naal yëpp mu mu yeggali ko maanaam moom it lii rek moo taxawee loolu maanaam tey naal yi Sëñ Tuubaa naal yëpp maanaam dafa dafa wax boromam na ko naa mottali yëpp tubaarkal li ma yéen yëpp ci naal naa ko mottali moo tax mu ne atti ma na nga matal maa lépp loo xam ne na way tuxoo yéene naa ko min birri tubaarkal la ci baax min biri ci tabax ay jàkk min biri euh, ci defar ay taalibe di leen tarbiya min biri ci taxawal ay jàkk noonu nga koy ci lépp lépp fii ci moo xam ci lu nëbb wax leen ak ci lu feeñ daan mu mel dafa tiim yàlla ba tay naan ko anta la si lastu ara siwaaka kon nag faqur simaami awli nii bu daaka anta yow allasi yow yaay ki nga xam ne lastu ara déet may gis siwaaka ku dul yow mooy du ma jaamu ku dul yow du ma ñaan ku dul yow du xool ku dul yow du ma toroxlu ku dul yow kon nag noonu la demee sama digganteeg yow kon faqur woomatal ngalle simaami sama noos te awli nii nang ma jox ku daaka sa <laughs> sama noos te aw li nii ma jox ku daakaa sa njub <laughs> mu ne maanaam gisuma ku dul ma jaamu ku dul yow kon nag nanga sama noos ba noppi xëcc sa njub gi jox ma ko te yàllaa ko may njub yàlla ci bopp moo ko may njubug yonente bi sallallahu alayhi wasallam léeg loo njubam ga mu kon foqut nanga womat si maam yi sama noos aw li ma jox ku daakaa sa njub mu ne kun waxalim ni ya min ladunkaa xel man ba léegi fu ne mi ngi ñëwaat ci xam xam la dunya ndax xam-xam bu yéeme la waaye xam-xam bu jafe la gis nga loolu ba la ngay xam ne jafe gi rek mooy xoolal Moussa te yonent yi yàlla da leen di jàngal yàlla da leen di xamal jàng sax waaye yàlla da leen di xamal ndax lam leen di xamal duñ ko fàtte te duñ mooy yàlla te baata tawhid rek kalimatu tawhid la ñuy woote waaye xoolal nu mu amee xam-xam xadir mii nga xam ne du ab yonent suñu borom jox ko xam-xamu la dunya te xoolal xadir nu mu ko jommalee dem ba ne ko maa faxaltu xanaa am ri salika taawilu maalam tasti ali sabrat li nga gis ma def ko lépp te nga laaj ma ko te ma waxoon na ca départ ne bu ma ko laaj def ma ko soo mbiram bopp waaw def ma ko soo mbiram bopp waaye yàllaa ma ko digal tabarikal xoolal loolu yëpp xoolal loolu loo ci mën a jàngee xisa bu gudd ak nu mu neexee ak nu mu yéemi xadir ni ko yàlla joxoon ci ay xeeti xam-xam loolu yëpp mooy xam-xamu la duniya xam-xam bu am solo la moo tax ma ne suñu yàlla nga nekk lii ñel ma waa alim ni na nga ma xamal min la dun yow xel man xam-xam te mooy xam-xamu waxab maa ngi nga may lii ñeel ma man suñ tubaa rabbi yow sama borom san ma jàpp xan ci yow maanaam ma jàpp la bañ lay bàyyi fu ma toll comme léegi yàlla may na ko xam-xam la duniya nam ko may yoon xadir noonu xadir jàppee woon borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne lépp loo xam ne nekk na ci suuf rek te nangutu jaamu yàlla te na a xëñ ñu bari rek xadir moom da ko daan rey gis nga kam rayoon ca gaal ga waaw fii safinati xaraxaa xaala axraxtaa xaala axraxtaa li tuxriqa ahlaa laqad am na waa joo xam ne xadir da ko rey bi mu paree bi mu ko waxee Moussa Moussa moom dafa tiitoon yow gaal goo xam ne yaa ngi ci dugg fayeekuñ la ngay rey nga rey jàmbur waaye gis nga ba mu koy firal mbir ma dana ko kooku ay ay kii ay woy juróom ñépp moo xam ku góor ak ku jigéen moom ab yéeféer la te mën naa yàqaale woy juróom góor ak wu jigéen loolu moo tax ma rey ko nga xam ne moom moom kenn ku bon dee moo gën nag mu yàq lu bari xoolal googu rek googu googu xakkiim xoolal googu xakkiim mu ne ko kun lii nag ma nekkal waa alim nii na nga ma xamal min la dun kaa fa yooyal man xam-xam waxat lii nag ma may rabbi yow sama borom aqsan ma jàpp xante ci yow mu ne lii jut bi maa yëkkoon sas titaar yi bay nii wa bay naka min al lasraari mu ne lii jut nanga ma tabe na nga ma may jut nanga may lii ñal ma bi maa la nga xam ne yëkkoon dana nekk sas tira sas titaar yi di borom ak nëbbutu bay nii sama diggante wa bay naka ak sa diggante yow yàlla minal asraari ci ay sekar lii dox secret yi dox diggante yàlla ak bindit ak yi dox diggante yàlla ak sëriñ bi kenn xamul toll waaye waxoon na ko ca xasida bu saraanaa jam sa sunaa waxoon na ko fa yow yàlla maanaam secret bi may gis sa pegg moo may yokk cofeel ër gune sa hittu bayniya wa baynallaahi si ran ye sii duniya xubbulaay secret bii da may jàkkaandoo di ko xool di ko gis noonu moo may yokk cofeel ër gune moo tax ma ne lii jut nag ma tabe bi maa la nga xam ne yëkkoon dana nekk sas ci taari di ak nëbbu bay ni sama diggante ba bay mu ne lii jut ba tey nag ma may bi jaahil mu tubaa ci darajaay ka ñu tànn ka maa la nga xam ne faaxaa kawe na xendalës yi na fa gaa ña nga xam ne sa boqoo jiitu nañ waraa xaa waraa xoo moo doon cosaan baat bi waaye comme alif rek lay daanoo alif képp lay daanoo moo tax wéywee tax mu ne waraa xaa maanaam waraa xaa te ñu yéeg ci seen borom gaa yi fi jiitoon ñëpp te yéeg ci seen borom te mooy allasiina sabaquuna bil imaani wala ta na wala tacal fi xuloo bi naa xillan te muy muhaajir muy sahaaba yu muhaajiriina ak waa ansaar gaa yooyu yëpp mu ne nanga ma may ci darja yi kañu tànn ka maanaam lu kawee loolu kon da gis ne xam-xam ñi nekkoon ci yonente yi nee na yàlla may na ko xam-xamu Luqmaan ba ci Xadir ñi nga xam ne duñ ab yonente ñëpp xam-xam lañ amoon suñ Tuubaa suñu borom may na ko waaye may li nekkoon ci sahaaba yëpp yonente yëpp yàlla may na ko seen xam-xam yi awliyaa yëpp borom xam-xam yëpp yàlla may na seen xam-xam waaye ba noppi may ko lu nekk ci saxaaba yi moo tax mu ne lii jub na nga ma tabe na nga ma may bi jaayal mu tuwaa ci darjaak ñu nga xam ne mooy la nekk fa gaañ ñi nga xam ne sa boqoo jiitu woon nañ fi waraa xoo waraa xaala nag te ñu yéeg jëf ci seen borom mu ne xapliya maa yëqi bu an siwaaka wa an siwal muxtaari min bisraaka xam nga fu ne li nit ñëpp li ñi am ñëpp ci xeeti xam léegi wax na ne yàlla jox na ko léegi nag ak yàlla moo des moom lay ne xat na nga may lii ñal ma maa la nga xam ne yëqii bu dana faddu fan si waakaa wëlis ku dul yow may ma loo xam ne ku dul yow doo ko xam fu ne mbiram sëñ bi yàlla rek ko xam yàlla képp képp parce que da dafa jéggi nit dafa jéggi xel ak bët waaw ndax la ni yàlla alalaahi bilaa taqarrudu muhammad taqbala waaye nag lii xaada xanil kaw ni wa fiihi fut yàlla jox na ma loo xam ne bindeef bi bindeef yëpp kaw nu yëpp lu ñuy bëri bëri maanaam ump na leen kenn xamul ko sëñ Tuubaa nee na foofu laa rawee nag la nga xam ne sama digg ma sama boroom képp la lii ngeen di gis ci adduna yëpp maa ko moom waaye ak a baax bu ngeen koy tudd di ma tudd sama wéet nekk fa sama ñàkk a nekkul fa sama ñàkk war a ma nga ca bagage dama yàlla jox waaye nag bindee fi xamuñ ko moo tax ma ne xabliya nag ma may maa la nga xam ne yëqiwu dana faddu an si waakaa wëlis ku dul yow waaye nag waxan ci wal muxtaari ak wëlis ku dul ku ñu tànn ki tama yónente yi min bisraaka ci li nga xam ne mooy sama mbégte yow yàlla kon léppam yónente bi rek xam ak yàlla ku dul yàlla ak yonent bi rek ëppale nga sëñ tubaa loolu moo koy waxal boppam du am murit bu sawar bu mel ni man rek maa koy wax déedéet sëñ tubaa ne ne yàlla ak yonent bi rek ma xam keneen xamul ma moo tax fu ne kuñ ne yaa xam sëñ tubaa rek sonal nañ la dëgg-dëgg gis nga coow li yëpp mooy lii kuñ ne la yaa xam sëñ bi sonal nañ la parce que sëñ bi maanaam ki gën a yërëm mooy ki tuddee na da koo xam sëñ tubaa ki ki ki ki maanaam ki yërëm ki gën a yërëm mooy kooku moo tax dafa man manti bàyyi xel mu ne ajib mu ngi daaneel xasida mu ne ajib yàlla nag ma sama ñaan bi jaahi ci daraja yonente bi wasalli yàlla na nga julli bi salaam nga ànd kook sëlma ci kaw moom yonente bi bil ali ànd waa këram ña wasan bi ak saabaam yëpp alkiram ñi da tedd allahuma yow suñu borom sëlli yàlla nga dolli ko laa ma ñaan yi wala ñaan yëpp ci xam-xamu la duniya xam-xamu sariya ak xam-xamu hikkam yi tabaarikala yëpp na nga sama ko nanga ma nangul ñaan yëpp te nangul na ko te lii yëpp boo demaatee ci yeneen xasida dala na yàlla jox ma ko sëñ Tuubaa lépp lu mu ñaan boromam boo demee ci beneen da ngay gis day sant xamal ne di xamal nit ne yàlla jox na ko moo tax ma nangul sama ñaan yëpp ci darjaay yonente bi te julli ci moom tey sëlmal ànd ko waa këram ak saabaam yëpp xam ne dolli wóolu ci moom yonente bi sallallahu alayhi kon xasidi gi yéen ñu mooy wa allama aadama asmaa kullaa kon nag yàlla nañ ko jëriñoo ñun ñëpp firi guñ ko firi yàlla na suñu borom euh, bindal payooru koo xam ne da ko firi li sëñ Tuubaa wax xustumu nan toodoo sàkkal xarfaa ñu ne yàlla na dugal ci bayit boobu sëñ Tuubaa neen saa yu ma bindee wala ma jàng benn araf xéewalu suñu borom yi dañ may lëm dugal ma ci boobu la araf isa katatu aw xarantu xaadaa liyel ba diam fatloo fan xaadaa su ma ma jàng yàlla muy aji fent ji bind lépp te xoolu ko la koy amee kon nag ñun ma inaa leenaa bayaan laa ilma lanaa kon ñu waxoon la malaaka yi waxoon rek li sëñ Tuubaa tënkee di gi ndax malaayka yi bi leen yàlla waxee wax leen tur yi ñoom xamuñ ko aadama moo leen waxal tur yëpp kon ñi ñi ngi wax subhaanaka laa ma ilma naa ñi ngi koy wax ci xasida gi ndax xamuñ ci dara xasida gi tout bu fekkoon ne téeméer la benn boo ko xaajee fukk xamuñ sax benn la kon nag subhaanaka rek la ñuy waxaat laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim wa salaamun alaa man ittaba'al hudaa